safante rootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina jóg di way sang be suñ teewaay si màggal gi dañuy ñaan yàlla yàlla def fi jàmm rek def senegal jàmm def fi lépp jàmm bu wér waaw di ñaanal tamit yéen journalistes yi nga xamante ni seen liggéey boobu ba léegi yéen a ngi ci bàyyi woo leen benn yoon yéen a ngi liggéey teg ko si yoon waaw ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko di ko ñaanal mbokku julit yëpp waaw màggal gi moom macha allah waaw dañuy sant yàlla bu wér rek. lan nga yëg lan nga ah, mbégte rek lañu yëg mbégte rek comme sëñ bi nu mu ko wootee bis la boo xam ne bisu mbégte la kon bis la boo xam ne tey jii nii su la waaye tooñee sax mun nga ko jéggal bis la boo xam ne bisu ñaan la. lu ñu fi indi mooy lan dañuy ñaan après nekkaat si liggéey bi dina a ma liggéey comme sëñ bi nu mu ko waxee waaw loolu nag. gis nañu solo masque la moo waral. no ak ak feebar bi ak Covid 19 bi variant delta fu mu toll gis nañu def na ay euh, ay dee yu bëri yow ngay ñëw fii si jumaay solo masque la moo waral. dëgg la ndax daa daa am benn yëg bu ma yëg rek loolu moo tax max bi sax dama ko plané ndax maam li ma yëg moo moo ëpp doole. pour doole match bi doole match bi loolu moo tax ma plané match bi mais ñu ngi siy jégalu nag ñu ngi siy jégalu trop ndax ndigal la ndigal bi xam sëñ bi moo ñu ko wax mais xam nga rek doomu aadama motul waaw doomu aadama motul ñu ngi ñaan yàlla daal feebar bii di corona mu jug si mbooloom réew yëpp waaw surtout suñu Sénégal ndax Sénégal lañu am dañuy ñaan yàlla président Macky Sall yàlla defal ko jàmm ak mbooloom julit defal ko jàmm ñu ànd liggéey réew mi. loolu la ñuy ñaan yéen nag ñoo kontaan nañ si yéen trop dëgg fa ne di ñaanal mbokki taalibe yëpp jàmm bëgg nañ lool bëgg nañ lool yéen am leen jàmm yàlla leen yàlla defal jàmm. jërëjëf jërëjëf. merci tur bi naka la. Mouhamadou Lamine Dramé. tur beeg sant bi. waaw tur bi Yaya la. waaw waaw lan Yaya Ndour. Yaya la sa teewaay. waaw teewaay fii moom du dara lu dul xam nga rek ñëw sant ku tedd gi ndax ñun suñu lépp Serigne Touba la amuñu ko dul moom xam nga kon bis bii nii mooy. màggal Touba dafa waxoon ñu santale ko suñu borom kon lépp lu ñu mën a am rek ak lépp lu ñu mën a am suñu àdduna rek ku tedd gi moo ñu ko moo ñu moo ñu ko gënal kon dañuy ñëw rek euh, fa yéene ko sant euh, ñaan suñu soxla yàlla defal ñu tawféex lépp lu ñu fi ñaan sama borom nam ko may ñu koy fekkee ay déwéni déwén yàlla defal ñu kàttan may ñu xéewal gu ñu mën a di fi teew chaque année. lan lan wax ñi waxoon ne euh, variant delta bi nu mu jógee ak dee yu ñu annulé non annulé <laughs> màggal moom loolu moom saa yi moom du lu mën a am quoi donte xam nga. seen bamba rek corona beeg et mais bon. takkoo masque. non masque non takkoo naa. gëm gëmoo ne gëm naa ko sax. feebar bi lu am la mais bon xam nga rek <laughs> mooy loolu quoi ñun moom saa yi non du <laughs> ku tedd ki moom saa yi ay corona ak ay yooyu moom saa yi mooy loolu. ku tey gi daal di xam nga rek ay mbiram mi ngi noonu waaw donte di sant yàlla di jërëjëf Serigne Touba rek waaw. tur beeg sant bi. Ahmadou Diouf. Ahmadou teewaay du ko waral. ànd yàlla jul si sëñ Bamba nga xam ne lii mooy suñu mbégte fii ak fañ jëm màggal na dafa doon loo xamante ne bi doomu aada mënu ko xam. maanaam dafa nekk si ginnaaw xel nekk ci ginnaaw xool ñun nag ñu ñuy nga xam ne ñun yaakaar ni kenn ku dul borom Touba moo xam muy guddi moo xam muy bëccëg moo xam muy naañ moo xam muy taw dañuy gën di sant parce que ab cant rek ñu war parce que lañuy am am nañ ko ba pare muy kanam taw féex waaye nag cant gi moom am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem. te tey lañ gën a mën a sant tey la ñu mën a dund ak borom Touba te xam ne lii metti na trop waaye nag carrément taw fii doo gis benn benn mboqtaal boo xam ne carrément su ma yëgoon dugg na fii déedéet tey lañ gën a bëgg a sëñ tey lañ gën a tegaat foofu man xaw ma kande de waaye man fa ma tegal yàlla la teg borom Touba man lu ma ci góobee gar ko man xaw ma na keneen parce que maa jëlee si lëndëm indi ma si leer nga xam ne ki ñëw nee la carrément jox la ndékk jox la añ. bu la naa jox ni reer nga war ko mën a gëm kon nag borom Touba nag jërëjëf borom Touba sax xajul xajul maanaam xajul sa si laamin xëy am waaye dem nañ ba am taw feex naan jërëjëf borom Touba loolu ab sant la yu Touba nag baax amaana sama xol bi moo moo moo sedd ba mënu ma wax waaye nag dafa doon kàddu yoo xamante ay soñ yoo xamante mun tey ñaax man di la firnaan suñu suñu diggante sëriñ bi rek maanaam fu mu yem rek xaju si àdduna bi dina ab cant la dinañ seer ba ku nekk sa tur ak sant dinañ jox seen wàccuwaay dinañ def ni kaa ñuy gën a santaan nag lii ma ab cant la parce que moo leen kaa santalee santale ma yàlla moo xam muy ginaar ba ca gileem ginaar ba ca gileem ni wane 18 safar lii rek moo ko wane boo xoolee gileem ka tànk la nag quatre la muy lan huit xar quatre la muy douze béy waxinoon ginaar waxinoon noonu muy dix-huit kon nag lii yëpp sant la waaw lii yëpp sant la ñun am njëriñ di sant rek te saa yu yeewoo saa yu chaque Cees dañuy sant borom Touba man saa yu ma yeewoo ba si tonni tërëfatu ay nii damay sant borom Touba man. mooy sama tawféey fii ak fañ jëm te fa ma teg yàlla fa laa teg borom Touba man lu ma ci góobee garab barke Seydina Jaalibatu Marahib cant képp moo ñu war du leneen bu ñu sanoon nag chaque jour day doon màggal waaye nag xel ku teel gi nii la ko bëggee waaw. yaa ma sant Guèye. sa Mariama Guèye Mariama rekk lam ñëw rek fii Touba mosuma ñëw ma ñëw rek siyaare Serigne Bamba Serigne Bamba moom dama ko bëgg rek yàlla moo def loolu noonu mosuma ñëw ma suma koo wàcc waaye ren dafa joot rek ma topp naan dama bëgg a dem man Bamba ma oo fu ma jaar rek dem Touba te ma ñëwee kontaan naa trop fu ni toll nii suma xol bi seereen na dégg moom kontaan naa trop nekkuma murid de waaye wax naa moom taay moom léegi moom taalibe laa doon. taalibe Serigne Bamba waaw ndax gis naa fi li nga xamante ne nii nit ñi li ñuy wax si biti ak lu nekk fii nekkul benn ñeneen ñu bëri dañuy nekk di yàq fii di wax ne fii mais bi cirque la ñuy def wala li nga xamante ne nii bokkut ak diine bi ñeneen yi nga xamante ne nii comme si yeneen ay xeetu diine yu gaay bokka waaye ñun ndeg fii boo fi ñëwee sa kool day mot di nga sol lu jot góor ak jigéen ñi duñ booloo daal la fi diine yëfi islaam moo fee dox moo tax ma gën a kontaan ma xam ne nit li ñuy wax yëpp amut nit ñi seen gom-gom la ñuy wax rek man maa ngi from Gambia Gambia laa jógee ma ñëw fii nii. yoon bi métti woon na waaye jërëjëf Serigne Bamba ndax agsi nañ si jaama mbir bi yëpp daal comme que agsi nañ si jaama Bamba jàpp na si jërëjëf di sant Bamba rek. di ko sant rek ndax man moom su ma ñëwee fii tey bambaata tax jërëjëfee Bamba Bamba mi ñu indi yàlla nañu yóbbu yóbbuwaat si jaama te mi ñuy defal at bu jot ñu mën a ñëwaat fii Touba siyaare ko si di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan sa bëkk Bamba yàlla na ko yàlla def yàlla def ñu ay taalibe yu déggu yàlla sax jaama daal loolu la ñaan jërëjëf. c'est comment le nom? Eh, tout vient d'où? Kabri wala Salam Kabri. Abdul Salam, et aussi voilà, grâce aussi à, à Sek Ahmad Bamba, et aussi c'est pour cela qu'on est là pour voilà, rendre, on est là pour rendre visite, pour que aussi voilà, que les gens vont savoir que Sek Ahmad Bamba, euh, c'est une aussi voilà, prophète aussi, voilà, c'est que nous, on est venus ici. Mais, vous venez d'où Voilà, voilà, Burkina Faso. voilà, Burkina. Moi, je suis Burkinabé. C'est pour cela, on est venu ici, la grâce à Sek Ahmadou Bamba. Et aussi, c'était. C'est la première fois que vous venez à Touba ou que je suis là. Ah. Et aussi, voilà, 2021, que, aussi que, voilà, pour que savoir, Sek Ahmadou Bamba, c'est grand, c'est grand. Ouais, c'est pour cela que je fais tout possible pour le rendre aux visites pour, à, la, à la prière de Cheikh Ahmad Bamba. Voilà, que je, je souhaite aussi les gens qu'ils ont pu voilà, être là pour nous. Et aussi les gens qui n'ont pas... ay sunu deret yëngooti na sunu sidit yëngooti na ñu jóg di way sang be safar terooti na sunu derot yëngooti na sunuy sidit yëngooti na bu ñi jóg di way sang be